safar mooy sunu mbégte 18 safar ñun de saf nañoo salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum mbokki internet yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan à travers Dakaractu euh, di waxaat jër jërëjëfati Serigne Saliou Cheikh Béthio jaamu Serigne Saliou sunu wasila yal na ko Serigne Saliou teeru te teral ko sëriñ Saliou ndigal cuun mi nga xamante ni moo di xalifaam mu yàgg fi lool te wér euh, man nag man la ñuy wax Mamadou Ngom ñu gën maa xam ci Mamadou Ngom le chanteur cadet de Cheikh Béthio Thioune chanteur cadet boobu noonu mi ngi jógee ci ki nga xamante ni sunu mag la sunu nijaay la sunu xarit la ñu koy wax DJ Boubs bi ma génnee sama premier clip ma tuddee woon morceau boobu Cheikh Béthio mooy Serigne Saliou en 2012 la woon boobu gënoon naa nekk tout tànk bi ma ñëwee ñuy def euh, émission bi mu xool ma ne ma xanaa nag yow yaay la chanteur cadet de Cheikh Thioune léegi nag chanteur cadet nag foofu la jógee ba sama sëriñ Cheikh Béthio Thioune di ma woowee mon chanteur cadet ba chanteur cadet daal law ba képp ku ne Mamadou Ngom faaw nga teg ci la chanteur cadet de Cheikh Béthio Thioune. samay morceau yu bare bari sëriñ Béthio laa ci wekk si Saliou ñun nag euh, sëriñ Saliou Mbacke moo nu boole sëñ Béthio ndax sunu ànd ak sëñ Béthio du loo xamante ni lu nu sàkku la da di loo xamante ni sëriñ Saliou Mbacke moo ko dogal. ndax Serigne Sall daan wax naan ànd yi ngeen ànd ak Cheikh Béthio Thioune bu leen yaakaar ni seen liggéey ndey la mbaa seen ngóora loolu sama coobare la kon nag bu ñu demee bay way Cheikh Béthio Thioune c'est grâce à Serigne Saliou Mbacké te wax dëgg fa yàlla euh, bi ñuy way Cheikh Béthio léegi wax mi ngi bëgg a yàgg ndax euh, def nañ single Cheikh Béthio mooy Serigne Saliou en 2012 def suñu premier album en 2014 depuis boobaak léegi war naa mat suma juumul juróom-benni at mi ngi mujjee defar album ak léegi way nañ ko morceau yoo xamante ni euh, ñu nu yàgg a dégg nañ ko tamit seetaan nañu vidéo yi ci télévision yi ak réseaux sociaux yi au niveau international. waaw waaw ñun nag ay ndaw lañ te dafa am ñoo xam ne dañuy bëggee di nu safoo ndax 2014 ak léegi ay at la juróom-benni at la boobu léegi sunuy soppe ñu ngi ñoo doon xaar ngir ñu ñëw indi lu yees. ñu toog rek waaye dafa jot moo tax ñu indi leen album boo xamante ni album 5 titres la album bi maa ngi ko tuddee 18 safar 18 safar ku ne xam nga ni mooy bés bi nga xamante ni mooy màggalu Touba te Serigne Touba moom daf ñoo defal loo xamante ni lu nu jomb la moo tax album boobu ñu duppee 18 safar tey jii di ci mercredi bi ma génne ci benn single single bi nag moo tudd 18 safar waaw moom laa génne bu ko defee gars yi waajalee ko vendredi incha allah la album bi disponible le 25 septembre. bu ko defee ñëpp am seen CD ñu àndandoo moom màggalindoo Touba. ku ne xam nag jamono jii dañoo nekk jamono joo xamante ni jamono ju xaw a tar la waaye ñun du suñuy coobaree bopp moo waral ñuy def ndax bu ñuy def daa am ñu nekk suñu ginnaaw ñoo xamante ni dañuy ndamoo di ñu safoo di ñu tiitaroo kon du ñàkk bu événement yi amee ñu génnee leen loo xamante ni dañ koy noosoo di ko savourer ndax 6 ans du benn fan du ñaari fan depuis 2014 laa ko def album kon dafay yell ci 2020 bi ma indi album bu bees tax ak mélodie yoo xamante ni ku ko déglu tubaarkaal di nga xam ne lépp la comme ni ma ko waxee ci way wi ma ne ko 18 safar mooy sunu mbégte 18 safar ñun de saf nañu bésub tukkeeb Cheikh Madou Bamba màggal gi sërice bi dafa duun te màggal gi moom bu jubsee ñun dañuy bég dañuy kontaan waaye comme ni nga ko rek màggal sans Cheikh def nañ ko borom nak mooy ki nga xamante ni bind te mooy jël sëñ Béthio bi fi nekk ci saa yi dañ daan màggalandoog moom muy neex lool waaye nag tey bu ay dogal tàbbee mu jiitu ji ñu kon dañuy santaat rek xam ne ñun ay juddit lañ ay taalibe lañ ndax Serigne Saliou Mbacke moo nekkoon sangub Cheikh Béthio ñu daan màggalandoog moom fii ci jamono ji waaye 2007 dafee bàyyeeku wàcc ñu fi booba tamit ñuy màggal metti woon na lool ndax am na benn morceau boo xamante ni maa ngi ko wey ci biir album bi maa ngi ko tuddee fàttaliku maa ngi naan ko wéetaay bi moo diis waaye Serigne Saliou xam nañu li nga doon du ñu la jaawale kon xam na ni sëñ Béthio jëmmam ji nga xamante dañ ko miinoon lool bu fi jógee nag dana dana dana nekk loo xamante ni vraiment lu tiis lay doon waaye xam nañ ni euh, sëñ Béthio lay sëñ Béthio jógu fi ndax euh, ku gis taawam bi di sëñ Saal ndigal Cuun nag yi baayam daan joxe daan ko def ci màggal gi da ko gën a doublé mbaa mu ko kon xam nañ ni sëñ Béthio wéetal nañu mais xam nañ ni lay sëñ Béthio jógu fi ndax euh, principe ba daal mooy la nga xamante ni mooy dëgg-dëgg sëñ Béthio mi ngi fi te ñu ngi koy dund vraiment màggal gi koy ak mbégte ak kontaante vraiment si Mountakha Mbacké nag ndigal lim joxe mooy nañ ñëpp màggali Touba màggali Touba moo ma war mo la war moo war waa Dakar ak tiwak waa waa Sénégal yëpp kon li may wax sama mbokki murit mooy nanu masendo ànd dem màggali Touba ndax Serigne Bamba kat daf ñoo sauvé ndax euh, maa ngi koy wax ci morceau bi ma way 18 safar maa ngi naan Bamba yaa tax ñëpp raw sëñ Bamba yaa waral jàmm ji ndax eh, ku ne xam na ni coronavirus daal la juróon ñu bare bare bare bëri waaye màgg gi daa dugg si nga gis kaa wàññeeku lépp wàññeeku te nag noonu lay wàññeekoo dem ndax sëriñ Bamba liggéeyam bi tubaar tubaarkàlla macha allah ku gis liggéeyam bii ni nii mu dooree nga xamante ni ñu ngi jëm ci màggal lépp loo xamante ji ni ay tënk-tënk la woon ñu tënk ko ay mindeef ñu commencé koo rocci kon xam nañ ni màggal gi nekk nag mbir moo xamante ni ah ay caaxaan kon sama mbokk yi murit yëpp nañu waajal màggal gi waajal ko waajal boo xamante ni buñ masta waajee ndax euh, ku gis ca kanam ni nga xamante ni doore nañ ko ci waajal màggal gi ci même pas un mois ñu ñu ñu récolté li nga xamante ni milliard la ak genn wàll presque kon loolu nekk na loo xamante du ay caaxaan du lu ndaw kon nag sama mbokki murid na ñëpp waajal ñu dem màggali man nag maa ngi invité ñëpp waa Dakaractu nag maa leen invité ci jannatu maxwa ci sëñ Saal Ndigal Cuun nga Cheikh allah. gi bi na safar mooy sunu de 18 safar sunu 18 safar ñun de saf nañoo 18 safar mooy sunu mbégte 18 safar ñun de saf nañoo ba suub tukkeeb Seex Madu Bamba màggal gi sëri ca bi dun na lool 18 safar mooy sunu mbégte 18 safar ñun de saf nañoo demam gageej wir wir maa yomba lambar na sëñ bamba kenn du yow 18 safar mooy sunu mbégte 18 safar ñun de saf nañoo sëñ bamba yaa tax ñëpp raw sëñ bamba yaa waral jàmm je sëñ bamba yaa tax ñëpp bamba yaa waral jàmm bu du woon nag sa mu ñaaw sëñ bamba yaa waral jàmm bu du woon nag sa yërmande kon mu ñaaw sëñ bamba yaa waral jàmm jee ba tax na sëñ bamba yaa waral tey jàmm ji ñu am tey jërëjëfe sëriñ ba war nañoo yàlla na ñëpp am jàmm